ne en tout cas euh, nañu dem ñu euh, fas yéene déglu li nga xamante ne moom mooy audio bi aja xam na ni rakk yi duñ ko takk ci farata ak na comme ni ñu takkee Clara Clara nekk jabar mu nekk jabar so nit ki nag bu ñu amul lu leen wóor ñun famille rakk la ndax rakk yi ak sama yaay ñoo kon xam nga ni rakki man ah, ah, gisuma ku ko gën a jege mais dafa fekk dafa di xale rek te famille am teg ci tànk ni ko carrément na bàyyi détails yeeg wax yi puisque c'est pas important mais dafa fekk ni rakk yi duñ ko bës bës bës ko bës ci miiru wis bi mm-hmm. waaw am na lu nga xam ne nag rafetul ndaxte doora am na droit takk ba ñeenti jabar sax bu ko neexee ndax jullit la mm-hmm. waaye rag nag ragalul kenn lu ko neex lay def xale la munuñ kenn munul ci moom tamit tarfatal ay mm-hmm. ay noo bu bu kii waree ay du aaye bu fay dem ay waxu tof ndax ñun famille am lañu xam nañu lépp li ci biir mais dafa fekk rek ñun yëpp yi réseau bi suñu yëpp mhm. mais bi ñu waree wax nag wax ji leer na nañ Kalaara jabar la rek comme ñëpp yaa ngeen ne seen jabar la raki jabar la c'est tout Doro day aaye fële di aaye fii ñun nag li jëntuwuñu dara mhm. ay wax yi picc yi ñun amuñu jot boobu mais dafa fekk nag raki duñ ko lu ne lu ne man chaque fois damay gis laay fi ñuy dugg ay fatar di ko foofu si boo tee man dama koy garaaw nañu bàyyi noppi rek bul wax dafa fekk nag ni souvent nag nit munoo continuer rek ñu lay wax du n'importe quoi nit nga nan ngay takkee sa jabar te doo gis nan ngay takkee sa jabar doo aaye ak moom loolu waxut dof yooyu loolu gaa you have to be very yenn wax yi gis na nit yàlla daf la may sa xel pour ngay déglu di xalaat du ay rumeur boo dégg rek nekk di di wax bu loo nekk di wax nit yàlla daf la may sa xel pour ngay xalaat takkee jabaram du ko aaye nan lay takkee jabaram du ko gis loolu yenwul maanaam moo tax nit ci il faut ñuy réfléchir te nit dara bu la wóorul te tey billahi bu ma pare léegi la pare añ bu ma pare photo premier mariage raki photo yi man maa ko yor vidéo yi ma nit ko tàgg laa ko yor ak yi tiktok nit ñi ñii di ma déglu xam na ci dara mooy photo moom door a génn wala famille am wul wul naa merci dañu jël di dugal ay photo wala ay affaire am non non te comme nag léegi nag nag wax dafa jot léegi nag yëpp laay balancé ba xool man lan la ci nit man lan yan photo la mook door a géy wala seen premier mariage bi seen photo mariage la seen photo premier mariage ñu takk ko def ay shooting am def vidéo am def lépp mais dafa fekk wax bu bëri coow ji bëri ñun ko graawul bàyyi que Racky xale la. Racky xale la Racky ba deux mille deux mille un la jub. soo gisuma lan la ñuy toog fii yóbbu Racky indil Clara ñoom ñaar ay jabar lañ c'est takk nañ ko takk nañ ko c'est pas la fin du monde Clara moomu nit ñi mënulul kenn dara. ah vraiment. dëgg la dëgg la mënulul kenn jigéen la rek comme yeneen jigéen yi. ñu la takkalee wujj da ngay gëm yàlla nga xam ne jullit nga ay. am ñaari différence ku nga xam ne yow alal daf la dab ak ku nga xam ne yow da nga fekk sa tedd waaw loolu kon kon gis moom lan ñu mën a euh, si ay luxury or anything ne dafay jaaxal rakki non non ñun moom fulaani ñu ci ginnaaw rakki ay dara parce que xale la te dafa nekk ci yoon waaye problème bi mooy instant bi euh, Clara daa mel ne mer na de parce que supprimer na photo yi nekk photo mook doora yëpp mi moom ah léegi bu meree nan naan nan naan malaajo yéenay wax malaajo wala aroon na boo fi boobu nan naan malaajo waaw nan naan malaajo lan la man ci raki raki jabar la moom jabar la dafa war a raki xanaa door Clara koy takk xanaa door am lu woon beneen jabar n'est-ce pas dafa ñëw fekk kii yor beneen jabar bu dugg ci sow la lan mooy problème bi man fi bopp man xaw ma lu tax rek africain yi bëgg ay détail bëgg ay problème jullit la am na droit gis na keneen bëgg na bëgg na takk jeex na. am na ñaari di takkal ay wujju defuñu ko problème buñ la takkalee wujju kay. door yor beneen jabar. léegi fulaani foto foto rakk yi foto yu bees la wala. foto yooyu foto mooy bi mu ko door a takkee ba mu def ay shooting am yëpp rakk yi umpalewul ak famille am dara ni koy gis nag dafa ah, yaru déggal famille donc photo yi nii rek du dee déggoo ak famille am day déggoo ak famille am liñ ko wax bàyyi day bàyyi liñ ko wax defal day defal liñ ko wax bàyyi day bàyyi. Buraan yaa ngi may dégg ah. non non allo. aw su may ma laaj ko ah benn question. yii yu bees sax la yii bokkul ba non non yii yu bees la man li may wax mooy bi mu solee jàllaaba gis nga rek xam nga suñu maam. chérifu mm. chérifu waa fees la man sama papu yaay mooy papu papu rakki. chérifu waa fees la. yaa ngi understand comme sama maam waa fees mu ne la euh, jënd jàllaabe bi def photo am mais bi wax ci bëree mm. elle a décidé mu def bi am private ko ok léegi bu bul génnee bàyyil noonu mais ñun ñëpp cousine am famille am ñi nga xam ne jege nañ ko gis nañu lépp mariage bi ñu rakki nekkul comme si duñ ko takk takk suuf wala dara man na xaw ma tax nit ñi ñuy wax seen waxu dof yooyu yow ngay takkee jabar doo ko def seeti doo ko lii doo ko dale loolu dafa am sens amul sens dañoo waxante dëgg ma may ma laaj. Fulani xaaral kii laaj la benn question s'il te plaît. waxal Fulani Fulani ñoo ngi lay nuyu bu wér a wax nga sa xalaat dëgg la mais li ñu bëggoon xam mooy. parce que xam nga ah. après polygamie beeg yooyu noonu comme ñëw nga pour leer rek rek mu gën a leer ci sénégalais yi ñu bëggoon xam photo yi ndax ci semaine bi la ko rakki dem wala sotti bu mu def bu yàgg la door koy dugal tey. shooting bi shooting bu bees la du ma dugg si ay détails yi yu bees tàq la yu bees tàq la may wax yooyu mooy bi photographe bi liggéey liggéey photo yooyu mooy bi mu solee jàllaabu marocain yooyu photo bi mu defee ci mariage am moom yëre am yëre marocain la soloon parce que maamam marocain chérif waa fees la yaa ngi indi seen so léegi ak yii yu bees tàq la mais géwélu Clara boobu laay wax lupe xaw ma géwél boobu the fuck is he mën naa a Guadagnino do pé. ayca Chanta mu ngi noonu euh, mu nekkoon euh, Fulani lañ koy euh, woowee Fatou comme ni nga ko déggee maa ngi la ko doon wax tout ne la ay mbokkam ku ci nekk yaa ngi yëkkati ay kàddu di yéeg yàbbi mm-hmm. si lu jëm si li nga xamante ne rek moom mooy mariage yu Clara ak Dora Gueye waaye mariage bi nga xamante ni rek moom mooy mm-hmm. ay dara mu mel ni ay shooting la yu nga xamante ne suñ tukkandikoo si lu fulaa euh, euh, euh, fulaani wax muy mbokkam di sëram Euh, mu ne rekk photo yu bees la moo jiitu photo anytime bi nga xamante ma ngi par rapport ak euh, ki nga xamante ne la ci àndal mu sol jàllaa bi mu mel ni euh, boobu moo nekkoon bu yàgg bi mais mhm. bii dafa pare dem jënd yére mariage am ñëw ànd ak jëkkëram def ay shooting mun nañ mhm. jot ne sax ba ñu ba mu ba jëkkëram génne prison la parce que gisoon nañ leen ci benn appartement ba sax ki nga xam ne rek Aïdara si la coow li tàmbalee woon moo diggante ba kalaara mu mhm. génn def benn vidéo di toppatoo jëkkëram donc ñu jàpp ne période boobu la si profito daal def mel ni la Doro Gueye sos na fii capp fee teen fee. ku <laughs> may jabaram lañ rek baax na. ay ah lew na ko dong. <laughs> jeex na tàkk lew na ko dong man daal moom mi ngi noonu comme nañu xam ne daal wujje moom. Mm. du dara bokk wër.